ba tax na xàmme dara tolluwul noonu te xàmme la ci jiitu moo di nga xam ni yàlla moo bind bind na na mu war a binde yow yaay jëf na nga jëf na nga war a jëfe bu ko defee am na loo xam ni yeddaa ngi génn na ci topp yàlla jëf ngir yàlla yeddaa ngi génn na ci ndax xale ba bu tuuti la dafa gis mag ma ci diggu kër ga mu ni ko maam nangam nangam génn moroom ya ni ko waaw lu tax kii nga ni ko maam mu ni dama dégg sama bàyyi di ko wax bàyyi kon nag mu wax ko maam yeddaange génn na ci waaw waaye ñi nu woo ñëpp ñi nu woo ñëpp ñun doomu aadama ñi woo ñëpp yàlla rekk a ci ni ma bind kon nag topp ko yeddaange génn na ci